ngook jër ngeen jëf mbokki internet yu Dakar 221 amante nañu mbégte beneen yoon ñëw jàkkaarloowaat ak yéen euh, ngir nag fas yéene waxtaanee euh, ay euh, poñ yu nga xam ne luy soxol réew mi doon ni ko fas fare di def fii ci Dakar 221 ñu am nag ci waxtaan bi koo xam ne duñ leen ko présenté ndax xam ngeen ko fii ci kër gi muy suñ xafoor moom lañ fas yéene si waxtaan bi tey donc ma bàyyi ko mu wante ak yéen laataa ñuy dugg ci waxtaan bi euh, sëñ Khafour asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam sëriñ Babacar ñu ngi lay nuyu baax a baax di la jaajëfal di jaajëfal ñi nekk ci technique bi sëñ Fall ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ñaan yàlla. mbokki internet yi DKR 221 dañu topp saa su nekk di ñaan yàlla lépp loo xam ne wax nañ ko fu mu nekk njariñ nekk njariñal Sénégal. Mm-hmm. di ñaan suñu kilifa yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci dëndu Afrique muy kilifa diine yal na yàlla yokkal leen seeni fan yal yàlla kattan na leen ba lépp lu ñu ñaan ci réew mi rek suñu borom def loolu. Mhm. ñi nga xamante ni bi nag ñoom ñoo nekk uh, ci hôpital yal na yàlla fëgg seen bàpp ñu caabi fee di ginnaaw yàlla yal na yàlla ubbi leen ba nuñ ca delluwaat. Mhm. bisimilah sëriñ Babacar. mu ngoog suñu xafoor uh, yal na yàlla nangu ñaan ni mu ko waxee alors. Euh, waxtaan bi nag euh, l' actualité euh, s'impose donc dinañu waxtaanee li nga xam ne mooy actualité bi fii ci réewum Sénégal waaye waxtaanee actualité boobu rawatina li nga xam ne amoon na fi di ay manifestation mënuñu ko seq ak yow te doorewuñu ci li nga xam ne dund nga ko muy ay agression yoo xam ne am nga ko ci li ñuy wax ay nervi Euh, yu rax ci manifestation yu mel di def katu ñaawteef euh, nga bokk ci ñi nga xamante ni euh, dal nañ sa kaw ba nga jëlee ci ay gaañu gaañu ñi lay masaw waaye gannaaw loole ñu bëggoon nga ñëwaataan yi ci mbir mi ana nak la demee ba jural li mu la jural. waaw alhamdulilahi beneen yoon alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Babacar dinañ son dinañ ci gaaw di tontu bu baax a waaw waaye tontu bi nag duñ ci duñ ci sori lool parce que am na lu ñuy xaar. Hmm. yàlla def na <coughs> depuis ñu bari ñu ngi may topp ci Dakar deux cent vingt et un lañ ma xamee. Hmm. yaakaar naa ni depuis coowul Adji Sarr Ousmane Sonko plateau télé yi sax maa ngi ci daan jot ay menaces ak yu kenn xamul waaye nag aussi dafa am loo xam ne ñun duñ ko gëm. Hmm. li tax ñu gëm ko nag ñun ay citoyen sénégalais lañ nekk ay ndonga daara. tolloon na jamono joo xamante ni bi maanaam ndongo daara daañ ko daarañ ko may fu fu mu waxee mhm. fal nañu daan fal nañ daan uh, teg ndongo daara muy daara ja jumaa ja téere ya day nag dañu nekk dëkk Sénégal goo xamante ni maanaam lépp moo changé te dëkk bi ni lépp lu fi am te ndongo daara dugal ci loxoom du sotti te aussi tan bañ am suñu gëm-gëm boo xam ne war nañ ko wax ci réew mi damay wax saa su nekk ñaari at bi ma toogee DTV yaakaar naa ne li may wax DJ Yves mi ngi may bàyyi xel bu baax a baax génn naa ay euh, oto topp ma. Mhm. boobu nag maa ngi àndoon ak ay garde corps waaye boobu jotu ñu yegg si ci man su ma numéro téléphone bi ñuy joxe tamit aussi dañ ciy woote dañ ciy woote numéro bi yoo xam ne ay privé lay doon wala numéro yoo xam ne fixe lay doon. buñ la woowee téléphone lan lañ lay wax dinañ la nangam dinañ la nangam dinañ la nangam. ay menaces ay menaces. yaakaar naa bi mag mujjee génn fii laa génnee bi ma mujjee def vidéo fii laa ko defee vidéo ci DKR 221 damay wax saa su nekk nag ma ni am na loo xamante ni bi buñ demee ba réew taxawee noonu maanaam yow ngay dal ci ñoo xamante ni bi yaakaar naa dañoo am seeni point de vie di ko wax ci société sénégalaise bi di ko mhm. wax li nga xam ne mooy jëmm réew mi amoon lenn loo xamante ni bi yaa ngi koy def lu dul di ko di ko di ko arrêté sole ay kagul yàllaa ma suturaal nag parce que bu fekkoon ne dama leen a bàyyi ak seeni man-man. Mhm. konoon neen heure bi kenn waxatuma. waaye nag aussi bi biñ biñ ma interpellé ma taxaw rek dama gis gaa yi génn a paake ma daw songu leen tànn leen suma ñaari loxo yi ci laa maîtriser kenn ki jam ko ñaar ñi daw gars yi nag dañ lay gis ak say bolok rek ñu jàpp na yow moom da ngaa mën a waxee xaalallahu xaala rasul déedéet. donc daal dégguma bu baax eh, yow da nga da da nga dox ci mbedd bi eh, ñu interpellé la. waaw léegi après. jaar ci sama tur. Mhm. xam nga kilo woo. Mhm. jaar ci sa tur loo mën lu taxaw. du agression parce que sama ñaari téléphone a ngi man. Mhm. am na koo xam ne kuy agressé du sol kagul. am na am na wala amul. mooy waral kuy agressé kii mën na mën na. mën na waaw waaye déjà dafa am loo xam ne dafa xew ci réew mi. xam nga sëñ bi Babacar gis nga dëkk bi ak lu mën a wax gémmañ mu waxu dëgg wax fen mhm. dafa am leneen lu fi dugg lu bokkul waa waa ñu bokkut ak takk der yi te munoo leen xàmmee dëkk bi yëpp fi la tey mun naa dal ci man ëllëg mën naa dal ci keneen koo xamante ne bi xay bu la jëm kon nag tubaab danaa reculer mieux vaut ko sauter waaye dafa am loo xamante ni bi bu fekkente ni bi da nga ni citoyen sénégalais nga ni dëkk bi am na yoon wala dëkk bi am na ci ñoo xamante ni ñooy sécuriser dëkk bi mu am kumba am nday ak kumba amul na man xamatuma ci ban Sénégal la ne waaye nag yàlla suturaal ba ñoom dèjà dañ lay gis ci waxin wala nga gis rek ñu dox rek ñu ah kii de pour maîtriser ko yomb na xanaa loo may bett ñun ay doo nga daar la. yow la interpellé nan nan la nan nan la séance bi dem. nan la bi demee waaw biñ la interpellé juste bi ma woowee dafa taxaw. ban jamono la d'abord. ak dix neuf heures vingt heures guddiwul. d'accord fekk juste maa ngi jógee sport bi ma nee xaal suñu xafoor ma taxaw comme sama kanam la ñëwee mu dem ñëw ba ci man taxaw un mètre ma gis ñaar daw di ñëw jógee ci géej ci laa gis mu génne arme bi rek ma daw daal di ko tàllal sama loxo juyoog moom mu dëbb ci sama pied gauche ba pare daal di koy tegaat ci loxo bi ci laa ko prise na ma ko prise parce que dafa am loo xam ne dañ lay jàngal ci armation ne la bala ngaa maîtriser faw nga jël yenn coup ba pare. sa adversaire ci laa ko maîtriser nag bi ma ko jamee ci la gars daal di daw. kon jam ni mu la jamee yow. ba ba gaañ la ci loxo jot nga ko jam naa koo jam. waaw lépp too la. Sénégal lañu nekk. fan nga moom. fi laa ko jam ci loos laa ko jam. moo tax ma wax ne aussi dafa am foo xam ne boo fa tolloo ci coole fi mu toll mu leer ni tey ji nekkul loo xamante bi ay at wala ay semaine wala ay weer da woote téléphone ngir ne la seen xabar ngay nangam ñu ne yow doo defu nànk dinaa nangam jaar fu ñaaw doo leen xam. léegi nag moom moom bi nga ko jamee foofu dafa daanu wala. dafa dafa dafa daanu dafa daanu non bo fi mu ko jam mënul daw fi mu ko jam mënul daw. parce que tam ba am loo xam ne dañ la koy jàngal ay points la. d'accord après lan mooy lan mooy suite bi. Euh, suite bi nag aussi def naa déclaration ci police bi. non avant avant loolu bi nga xam ne jam nga ko ay moromam daw mu daanu. ñu jaar li ñu demee dañu dugg ci géej gi juste après booy koñ bi génn bi ñu génnee daal di koy jàpp juste ambulance bi ñoo ñu dañ koy yóbbu hôpital après bi nga xëyee suba ci laa dem def déclaration. d'accord jamono ji da ngaa déposé plainte. waaw déposé naa plainte parce que tamit dañu ne ci dëkk boo xam ne dëkk luwaa la tamit nit mënu la def lenn rek nga bàyyi ko noonu xam nga tey ji bu fekkoon agression la mu leer na yaa ngi say téléphone kon say téléphone dina kon dafa am loo xam ne bu amee rek mu leer ni tey ji nekkul c'est la fois mu leer ni képp koo xamante ne bi yaa ngi wax ci wàllu actualité yaa ngi ci danger ci danger boo xamante ne bi yow sa bopp lan ngay mën a def munoo foo mën dem di ànd ak ay garde corps ne. parce que aussi tamit nit nga. sénégal sénégalais nga li nit ki di yëg ngay yëg da nga am droit wu dem heure sport doon nga dem jafe sport am heure boo xam ne da nga war a toog pour doxantu daal di tàllal say muscles waaye nag yenn plateau yi ngay dem aussi dafay yoon nga daal di dem ànd ak say garde corps munu ñàkk parce que guddi gi plateau yi la le reste nag après ñu ngi koy bàyyi ci loxo yoon. waaw dafa am loo xamante ni bi tey jii bu fekkente ne bi dafa am ci Sénégal goo xamante ne nee naa la ñor gee réer ñor gi nag bu xasee réer fan nga ko war a mën a wëree mooy problème mu Sénégal. parce que li xew tey jii ci jamono jii maanaam li xew Cheikh Bara gis nañ ko te ñeneen a ngi ñëw képp koo xamante ne bi yaa ngi wax ci wàllu politique yow ci sa bopp yow nga nekk ne ndongo daar nga boo yeboo nga sóoraal sa bopp ana Oustaz Assane Seck. Mhm. Oustaz Assane Seck li wax ndax jar na tënk. xam nga dafa am loo xam ne dañu ne kumba am ndey ak kumba amul ndey démb li nga xamante bii moom Moustapha Diakhaté wax moo gën a yées ci peuple Sénégal bi tey ji li moo gën a garaaw ci li nga xamante ne bii Oustaz wax na ko. d' accord yooyu dinañu dinañu ci ñëwaat waaye la déggee bu baax ni nga waxee mu mel ni ñi nga xam ne ñoo def jëf ñu mel yow euh, amoo benn xàmme wala dara amoo xam maanaam xamoo leen. def nga euh, sa euh, waaw gannaaw yooyu bi mu amee mais. amoo ci benn njort ci kum war a mën a. non leen xamoo fu ñu jógee. bu ma gisee seen kanam ma parce que dañu kagulaay seen seen seen seen profil. mu ngi ci suma xel. parce que nit am na loo xam ne bu la ko defee rek mën nga bañ a gis jëmmam waaye profilam heure boo gisee na nga xam ne kii kat lii la. parce que mais ku kagule wu moom mënoo ko bu dindee kaw bi fi mu toll nii mënoo xàmmee diw waaye man taayam moom mën naa ko wax ne lii la un mètre nangam la un mètre nangam la un waaw waaye le reste loolu moom mënu ma ci dara. parce que bu fekkoon te ne bi koo xamante ni kagulewul boobaa moom déjà. Mhm. balaa muy dem na nga xam kan la ak ko yónnee. d' accord euh, donc ñu ñu xaarandi évolution yi nga xam ne mooy am ci mbir mi ndax nee nga doo ci sori comme yaa ngi déposé plainte mhm. euh, fi mu toll mbir mi mu ngi ci euh, loxo yoon waaye nag. Euh, li indi euh, yëngu-yëngu yooyu amoon ci dëkk bi ba ay nit profité ci bëggoon def ñaawteef bu ni mel mhm. euh, mooy gannaaw bu nga xamee ne Ousmane Sonko ci procès bi doxoon diggante ba Adji Sarr dañ ko daal di condamné deux ans de prison ferme ak six cent mille francs fa amende mhm. yow mu war a fay trésor la ca tukkee nag mooy ay manifestation yu bëree bëri daanaka Dakar foo foo foo foo dem amoon ay manifestation ak yeneen gox ci réew mi rawatina fële ca ca Ziguinchor yow euh, verdict bi nga xam ne déggee nga ko ci palais de justice bi jur euh, yooyu manifestation balaa ñu si ñëw ana nan nga jàngatee verdict bi ak bi nga ko déggee ban impression nga ci am. waaw sëñ Babacar xam nga mbir yu procès Ousmane <laughs> Sonko Adji Sarr moom damay wax saa su nekk yaakaar naa ne li ma ci bett bariwul xam nga li tax li ma ci bett bariwul muy am na loo xamante ni bi tey askanu senegal yey nañ ci. yay nañ ci justice parce que tey ji dans euh, deux ans yi ñu ko daan nekkul ci liñ ko doon toppee muy viol ak menace de mort corruption de la jeunesse lañ ko tëjee ndax corruption de la jeunesse ba jamono sosoo ba léegi da nga dégg ci miim réew ñu daal di koy toppee ni tëj ko. ça ne veut pas dire que ne du am benn yoon boo xam ne dinañ ci tëj nit comme am na suñu code pénal. ñu ñu sanctionné waaye tey lañ ko doog appliqué. parce que ni nit ñi xamoon ki nga xamante ne bi moo nekk ci poste wala moo nekk ci wala moo nekk ci yenn nguur yi tey ñu daan ne ko kii kat day day day def corruption wax yu dem waaye corruption de la jeunesse ban kan kan mooy kan mooy jeune du soxna si de du Adji Sarr maanaam corruption de la jeunesse boo fekkee ne wax nga ko ci sama déggin wu gàtt yaakaar naa ne mooy ndaw ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo génn mais Adji Sarr bu xam corruption de la jeunesse bi mu amee ci COPEAL dañ ko dafa am lu ko définir. te mhm. euh, Adji Sarr mu ngi ci fourchette boobu xëy na. parce que jamono boobee. bu amul bu vingt et un mhm. euh, te li ñu wax mooy jamono boobu Adji Sarr mu ngi am vingt ans kon mu ngi woon ci ñu mën ko mën nañ ko tënk foofe xëy na euh, topp nañ ko lu jëm ci viol ak menace de mort mais juste bi def na requalifié qualifié ne fee Euh, toppee Ousmane Sonko corruption de la jeunesse ba daan ko c'est pas que ne euh, bii mooy la première fois rek que war mën a am. Adji ko lu a am. Babacar moo mag ñun ci yàlla xular xam nga ñan la bu ñu jaayante te bu ñu naxante. corruption de la jeunesse bu fekkente ne bi da nga koy topp nii da am yenn kanam yoo xam ne boo ko xoolee da ngay xam ne kii jeune la bu ndaw boo xam ne dañ ko utiliser Adji Sarr moo mag sama maam. dafa am loo xam ne buñ ko xalaat gis nga nit gis nga xulil xaq walaw kaana murran del wax dëgg donte dañuy teg paaka sa put dafa am loo xamante ne bi Babacar gis nga coow loo xam ne ñetti at ñetti at deux mille vingt ba léegi ñu ngi topp ci wàllu mbirum ci wàllu mbirum viol uh-huh. ak menace de mort nga di topp nit heure boo ko woowee problème am heure bu ñemee di wujju ñu ne ko doo jaar fi fii ngay jaar nga dem ba benn moment donné boo xam nga ni da nga war a joxe verdict nga xam ne yow am na lenn loo xamante ne bi kenn kenn mënu la ko wax. Mhm. yow xam nga ni boo joxee verdict moom dëkk bi tàkk. parce que nag li problème bi Ousmane yàlla da koo dimbali xam nga li tax damay wax saa su nekk man Ousmane nañ ko bàyyi xel parce que li tax ma ne nañ ko bàyyi xel man. nee naa euh, lan moo tax euh, ngeen bëgg Eh, maa ngi ñëw non dafa am loo xam ne eh, li muy ñëw seen wax dafa bari lool inde nga ne dëkk bi tàkk dëkk bi nii dëkk bi naa. Mhm. Eh, pour verdict boo xam ne joxe nañ ko Ousmane Sonko ab citoyenne sénégalaise bu amee droit. Mhm. jàpp ne tooñ na ko mu porté ko yoon def liggéeyam mhm. joxe verdict am ana loolu lan moo ci war a mën a. indi bi xam nga tey jii damay wax saa su nekk ñun ñu ngi ñu ngi ñu ngi toog am na loo xam ne xam nga ko xamal nga sa bopp jàng ko keneen xam na ko nit maanaam xelam lay demee. mais que toog naan. wa waaw dëkk bi nangam loolu nekk na luy indi dal ci lan mooy problème bi nee naa la ku yaakaar ne Ousmane Sonko moo génne jeunes yi nax nga sa bopp jeunes yi ñoo sonn nee naa la lii nekkul ba président Macky Sall lii du du première fois am ci politique. mais ku taxa aussi ne da bëgg jàmm ci réew mi di wax yenn kàddu yi. jàmm bëgg nga jàmm ma ne. jàmm da nga koy jëfe nga liggéey ko ki nga xamante ne bii moom la yàlla dénk nguur moom moo war a njëkk a wut jàmm ba pare xam nga leen Ousmane Sonko yorul armée yorul dara Ousmane Sonko askan wi ñoo ko baxel projet bi mu tegal sénégalais yi ci kaw taabal ji moom la moom la sénégalais yi gëm beneen bi ci des mooy gis nga bu la yàlla dénkee nga nekk njiit danga ngaa war a tëddee njaaxanaay tëdd ñuy jaar sa kaw njiit du rëy gis nga fitna li alquran di ñu wax rek rëbb naa ko yee fitna maanaam daa am loo xamante ni bu fekkente ne da nga Ousmane Sonko mooy te Ousmane cinq chaque jour que am na ci loo xamante ni bu la ko nit doon toppee tey wala nit di la ko def saa su nekk da ngay fipp depuis procès bi léegi maanaam amut ñu ko deful ci wàllu mbirum salfaañi ak xam ak yelleefam buñ booy génn wuy ju ñu ne la doo jaar fii fii ngay jaar ñëw di barakete sa buntu kër maanaam ndax Ousmane Sonko dafa yore dafa yor armée ndax Ousmane Sonko dafa yore bip ndax Ousmane Sonko dafa yore xeet yi nga xamante ne bii moom la nguur du yor te mu lu mu bëgg a maîtriser maîtriser ko Macky Sall su bëggul dëkk bi am jàmm am jàmm. damay waxtaan ma ne la ci politique gu Sénégal ba léegi depuis 1960 ba fii may wax ak yow maanaam Ousmane Sonko maanaam révolutionné na politique gu Sénégal muy Cristiano Ronaldo bu politique gu Sénégal battre na tous les records parce que boo xoolee tey ji en Europe maanaam Cristiano Ronaldo entre Messi Cristiano Ronaldo benn Messi li mu am yàlla moo ko may kenn ak lu mu am da ko liggéeyal bopp battre na tous les records ci biir Sénégal. ñaareel bi ci des nag am na koo xamante ne bi bu fekkente ne bi yàlla suturaal nag nga xam ne depuis bu jógee ci politique defagul dix ans lëmbaajee Sénégal ci politique maanaam ci koo xam ne lépp lu muy def yàlla da koo suturaal boole ko askan wi ñu koy dimbali di ko jëndeel ay oto di ko ketal di ko defal leneen ak leneen nga xam ne kii kat am na loo xam ne suñ boroom moo ko namm ci moom. mais même bu révolutionnaire politique bu Sénégal. comme ni nga koy waxee terewut aussi. Euh, euh, su fekkee ne juum na yoon daal ci kaw. waaw xam nga juum dafa am ñaari pàcc. maanaam xam nga preuve la ñuy toppee nit. li nit di xaar ñetti at. nga ni da ngay andi preuve andi woo preuve ci lenn. beneen bi ci des damay wax saa su nekk ma ne la corruption de la jeunesse am na ci ñoo yenn avocat yoo xam ne sax maanaam donte mi ngi ci seen ci mi ngi ci seen seen loi bi maanaam ñu ngi koy doog dégg xam nga dafa am loo xam ne maanaam luñ la toppeewul ñetti at nga bëgg ñu ñëw ñu ne la yow kat lee teggil nañ la ko sax yoon dañ ko waroon bàyyi këram mu ñibbi parce que xam nañ ni sénégalais yi jamono jii. looy wax qualification des faits. xam xam nga loolu lépp requalification des faits. waaw léegi xam nga fe bi dafa am ñaar yoo xamante ni moo parce que juge bi nee na moom li ñu ko tegal nii mënul koo jàppee li nga xam ne moom la ñuy xam viol ak menace de mort mais menace na ko dugal ci corruption de la jeunesse. loolu gis nga Babacar xam nga ñun nañu bañ a suñu xel yi. maanaam gis nga corruption de la jeunesse taxul ñëw soon ko waaw wala déet dafa am luñ ko toppee ñetti at ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan xam nga par faw ñu bañ a jaawale yenn yi. mais lu mën a nekk la. waaw waaw léegi léegi nag ma ne daa waxuma ne lu mënta nekk la. waaye ndax moom ci boppam ta ci juge bi taabalam dossier bañ fa tegoon euh, corruption de la jeunesse moom moom lañ fa tegoon. mais fee yi ñu fa teg rek moom la requalifié. non fee yi xëy na ne mënuñu koo jàppee viol ak menace de mort mais mën nañu koo dugal ci corruption de la jeunesse. dossier bi politique xam nga lan laa la yëgal Babacar dëkk bi ñun ñu xam nañ lu fi ne Khalifa Sall nii lañ ko defoon biñ paree dañ koo génne ne ko defoo dara maanaam gis nga mbër déet Khalifa Sall kenn wax nga ko defoo dara. ah waaw dañ ko libéré. dañ ko gracier. waaw gracier bi nag. xam nga mais lañ ko toppee woon moom yoon. daal waaye lañ ko toppee woon Pape Diop ma nekkoon maire de Dakar taxaw ne ni lii moom laa fi doon def. xam nga aussi bu ñu naxante ñi fi jaar ñëpp ci post bu mu nekk taxaw nañ ne kees gi nga xam ne moom lañ ko jàppee ñoom noonu lañ ci daan dimbalee ay nit. Pape Diop moo génn wax ko kon bu fekkente ni bi da nga ñëw nga def loolu Khalifa Sall muy adversaire politique nga def ko Karim Wade suba daal di koy amnistier maanaam am na loo xam ne boo ko defaatee benn seul euh, homme boo xamante ni moom moo nekk une seule adversaire boo xam ne adversaire boo xam ne mën na dugg ci sa saaya jaxase la maanaam faw nga wut noo def ak moom maanaam gis nga la làmb ji boo ci nekkee nekk roi des arènes doo xalaat mbër doo xam mbër mi ngay bëreel ak moo dul bëreel da ngay ubbi làmb ji koo xamante ne bii mën na bëree yow mu bëree yow loolu mooy yoon ñaareel bi nag dafa am loo xamante ni damay wax saa su nekk ma ne gis nga dañu nekk ci dëkk boo xamante ne bi boo fi waxee dëgg yaa fi gën a am problème que ki yow ki ki ki wax ay fen dëkk bi fene fi mën dëgg li tax fene fi mën dëgg boo xoolee ñi fi wax dëgg ñépp ña nga rëbës toog ñi fi wax dëgg ñépp fi nekk ni buñ génnee gars yi kat leen di leen jóor kàccikat yi dong nag kàccikat yi kese ñoom ñoo fi nekk tey far ci benn camp boo xam ne bu ñu waxee dara du leen ci fekk te nag dafa am loo xamante ni bii maanaam ñun heure bu fekkente ne bi dañuy tënku ci li nga xam ne moom mooy alquran ak ñun lu ci baree baree bari dañuy gis nga munoo munoo tëbal munoo munoo nëbb munoo nëbb dëgg mukk di feesal ay fen parfois nag dafa am foo xam ne boo fa tolloo tey munoo lu dul wax sa xalaat li nga li wax sa wax sa wax li nga xamante ni moom nga xalaat ak moom nga gëm waaye gis nga dëkk bi manifestation yi fi am Macky Sall moo la gënoon a xam ni moo la gënoon a xam ni heure bu verdict bi wàcce dëkk bi tàkk dëkk bi nag tàkk nag moom ci boppam am na loo xamante ni gis nga njiit du rëy gis nga ndu njiit da ngay xam ne lii kat boo fekkente ne bi yaa ngi koy def ci sam réew askan tey ji ñu daal lay faloon 2011 nga tàllal askan wi loxo maanaam vidéo mi yaa ngi fii dara weesu ci moo daal génn fii daal di ne 2011 bu ma Ablaye Wade na def troisième mandat na xale yi génn. force de bi amul droit di dóor ci ci ci population bi. xaw xafoor kon man de non man li ma li ma jaaxal ci wax ji yëpp. Mhm. Euh, mooy euh, da ngeen di dëgëral euh, wax yooyu bu ngeen koy wax dëkk bi tàkk dëkk bi nii dëkk bi naa est-ce que gënul woowaat ndaw ñi ci dal jéem a xool nan la ñuy naqarloo li nga xam ne jàpp nañ ne am na te neexul leen. que di wax wax yooyu ndax loolu nekkul benn yoon message boo xamante ni xëy na dina nekk luy dëppee xol yi waxtaan am ba ñu. génne Sénégal ci situation bu nekk mais toujours euh, bëgg di wax dëkk bi dina nii dëkk bi dina na est-ce que loolu tamit nekkul discours boo xamante ni ñu ngi koy bëgg a soofantal di ko bëri ci penc mi mais du luy gën ci réew déedéet Babacar xam nga dëkk bi tey jii maanaam buñ ne buñ ne day tàkk bu tàkkee ay du yem ci bopp boroom kon ñu bañ kon ñu ñu ñu bañ a wax loolu waaw maa ngi ñëw non xam nga li tax xam nga lu tax dafa am koo xamante ne bii tey jii day toog ci plateau taxaw wax lu ko neex dara du ko ci fekk damay wax saa su nekk faw ñu bañ a jaawale ñaar ñun nekkuñ ne da ngay wax ne da ngay génne da nga da ngay ñëw di wax par pour ndaw ñi génn déedéet ndaw ñi seen yoon nañ seen i conscience tranquille kenn du leen génne du leen dugal ci musée pour dëkk bi tàkk ma ne yow boo xamee ne lii soo ko defee dëkk bi tàkk nga teg loolu ci sa tànk man foofu laay waxee parce que moo fi taxawoon daal di ne dëkk bi am na ci yenn dossiers yoo xam ne bu waree taal dëkk bi dama ciy teg sama conc ndax dëkk bi euh, ndax dossier bi depuis 2020 ba léegi 14 mois deec ndax matul woon ñu teg ci seen tànk ah ndax matutoon ñu teg ci seen tànk. ndax matutoon ñu am ci beneen wax bu mooy. bu defee lii dëkk bi tak bu ñu defee lii dëkk bi. ma ne wax ji ba mu ko amee. maanaam non wax jooju tamit xëy na mu nekkul loo xamante ni dafay dafay indi ak dal. xam nga apaisement tey boo ko boo ko bëggee yaa ko dox wax ko. yéen yéen ñu doxoo leen. non non non di wax ni moom doxul. maanaam dèjà xam nga bu fekkee ne yéen da da ngeen ne yéen. parce que ñun dañu am benn benn benn. wax joo xamante ne bi ñun li ñuy wax rek léegi ñi ngi ñuy dégg ñoom la ñuy jël di ko bëgg a di ko teg benn position négative am na koo xam ne wax na lu ko gën a pire te dara fekk ko ci maanaam ñun waxuñu ci wax woo joo xamante ne bii boo ko defee ko wax waaw xam maa ngi yéen muy keneen yéen waaw léegi nag damay wax saa su nekk man a gis nga waxtaan ci jàmm fañ ko waree def foofu la ñu weesu ñetti at ñetti at. non waxtaan moom duñu ko mos a waaw léegi xam nga li tax nga maanaam dafa am loo xam ne dafay xewoon ñu ne du fii bu ñu jaawale maanaam dafa am loo xamante ni mu xewee ba mu xewee mars ba dëkk bi tàkk daa dem ci sëriñ Serigne Mountakha waxtaan dëkk bi daal di nekkaat ci jàmm ñu sulu ñëwaat dossier bi maanaam dossier am ak dossier Mame Mbaye Niang Prodac bu bu Mame Mbaye Niang Prodac bi moo mujj man li ma jaaxal. moom heure bu déposé plainte du am suite te moom heure buñ ko déposé buñ ko plainte balaa ngaa def un mois ñu woo ko tribunal loolu question la bu may bu may laajte man tamit. d'accord euh, il faut ñu ñu avancer ndax waxtu bi dañuy dañuy bëgg a xooj euh, F24 dafa annoncé ay euh, manifestation nit ki vendredi ëllëg 9 juin ak aussi samedi. samedi 10 euh, ñaari rassemblement yoo xamante ni euh, mu ngi ko annoncé naka nga jàngatee rassemblement yi ñu wootee ak euh, contexte bi ñu ko wootee fi situation bi bi ñu nekk. waaw xam nga sëñ Babacar F24 seen rassemblement bi ñu mujjee def maa ngi ko doon suivre waaye ñoom benn ñaxtu la ñu am ñu ngi ko war a defaat waaye ñaxtu bi tamit lépp la ci nañ leen jox nañ leen jox autorisé ñu def ko ci jàmm bu ñu paree. ku dem parce que ñoom li ñuy jooy mooy Macky Sall warta def troisième mandat nest pa pas wala nañu libéré nañu bàyyi ñi nga xam ne ñoo bëgg a bokk élection présidentielle ñu bokk dafa am loo xamante ni bi tamit nee naa la citoyen sénégalais bi moo ko moomal boppam F24 maanaam ay membre ñu bari ñoo fi nekk bari nañ léegi nag le reste li nga xamante ne bi Macky Sall moom la waxoon ne dialogue man dama yaakaar ne dialogue pour mu taxaw ak waa F24 yi nga xamante ne bi ñoom majorité bi ëpp na doole ci ñoom bari nañ mu wax ak ñoom ci loo xamante ni dinañ leen mën a dégg ñaareel bi ci des muy gis nga li fi xew semaine bi weesu kenn du ñaanaat yàlla kenn mënuta ñaanaat yàlla mu xalaat parce que ay du yem ci bopp boroom benneen bi ci des mu ne am na ci ñoo xam ne yàqule nañ ci te seen yoon nekku ci te bëgguñ ko woon lan moo ko waral boo déggee ma wax la ma ne la parfois. loolu rek dafa ëpp du yoon euh, rawatina nag ñi nga xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan euh, ndax euh, ñi ci ñàkk seen liggéey ñi si gaañu gaañ ñu ngi ci teg loxo loolu rek da ko jarul woon waxuma nag bu fekkee tudd nañ ci bakkan ba ay bakkan yoo xam ne ron na ci est-ce que tamit jotul woon ñu ànd ak dal ak recul xool nan la ñuy dajewaatee en tant kilifa. waxtaan eh, ngir génne Sénégal ci jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko fan yi eh, que di woote waat ay rassemblement waaw waxtaan wi xam nga dèjà loolu maanaam ñoom seen rassemblement bi mën na nekk waxtaan xam nga waxtaan ci ci côté bu nekk nga ko mën a defee damay wax saa su nekk ma ne Macky Sall bi mu jogee tuubaa bërkaat ci démb yaakaar naa ne la mam fa wax Cheikh Mouhamadul Mountakha kenn fekkewul kenn xamul ku la man la wax ne la lii la wax sëriñ Mountakha rek wax na la ca gannaaw dëgg parce que kilifa yi heure bu ñu rek jàmm la ñuy ñaan ci réew mi jàmm la ñuy ñaan ci réew mi ak lu mën a xew ñaareel bi ci des nag tey ji mani la dialogue bi mu doon wax dialogue bi mi ngi doog a safe <coughs> dialogue bi Macky Sall ku mu taxaw bu taxawee léegi def déclaration wax askan wi am na loo xamante ni dina dugg ci nopp askan wi bu boobaa réew mi dana nekk ci jàmm F24 bi tamit. Euh, président moom xëy na lii nii ma euh, mën nañ ko ci bañ lu bëri parce que bi mu wootee dialogue yëngu-yëngu yi amagul ci réew mi. mu ne nañu toog waxtaan. wa te daanaka yii nii yëpp bokk ci yëngarew mi li ngay wax ni muy question troisième candidature question ñii dañ bëgg a bokk yu mel. Hmm. yooyu yëpp xëy na bu ñu demoon ca dialogue toog ak moom ci benn taabul dinañu ko mën a waxtaanee lay seen naxaar ñu war ko faa yeggee ñu waxtaanee ko. Hmm. kenn ku si nekk joxe say argument ñu waxtaan ci njëkk ak teraanga ba trouver ay solution Euh, ba ba njiitu réew mi di woote dialogue boobee ngir loole lii yeggaguñu ca kon tey bu ñu ñëwee ba fii dëkk bi am ay yëngu-yëngu yi xëy na mën nañu imputer la responsabilité ñeneen ñu wëta ki nga xam ne moo waaw xam nga dialogue bi dafa am ñaari pàcc yoo xam ne xam nga dialogue bi biñ ko defee ci suba si la réew woote buñ ko wuyoon li doon waaw déedéet dama ne dialogue bi dañ koo def ci suba si bàyyi bàyyi euh, ah, ah, non non non non dañuy waxtaan da nga ma posé damay wax ak yow ma ni la dafa am loo xam ne nee naa la bu fekkee ne da nga bëgg def jaloo dialogue bi d'accord nañ parce que dialogue Sénégal moom nee naa la réewu dialogue la kenn mënu ko bañ waaye nag bu fekkee ne dafa am dialogue loo xam ne dafa làqatu ci ginnaaw dialogue bi day doy waar yow xamoon nga ni procès bi gannaaw suba la nga woote dialogue dialogue bi fi mu doon gën a gaawee nga daal di jënd lépp tempériser ko bu boobaa maanaam réew mi day nekk ci jàmm parce que dialogue bi la fa dégg nga keroog suñ kilifa yi li ñu wax. président bi woote Diallo yàgg na de discours 3 avril euh, message à la nation ci la njëkk a waxee waxu Diallo. foofu la ko njëkk non mais bi muy njëkk tudd Diallo. ñu woote toutes les forces vives de la nation ñu toog ci table waxtaan. Euh, mu ngi ko def ci message à la nation bu le 3 avril bi muy faral di def laata laata ñuy dem ci ci fête de l'indépendance euh, mu féddaliwaat ko. ci entretien bi nga xam ne am na ko ak le groupe RFM en l'occurrence euh, ki nga mm-hmm. xamante ni mooy Alaaji Assane Gueye mm-hmm. euh, ci ngoonu korité mm-hmm. euh, foofu mu dellu féddaliwaat woote bi nga xam ne woote na ko ngir ñu dajee def dialogue waxtaane li nga xam ne mooy ëllëgu réew mi kon président bi muy woote dialogue sëree na loolu ak li nga xamante ni mooy projet bi waaw xam nga dafa am loo xam ne comme yaa ko teeloo njëkkoon na koo def ak fi mu ko defaatee man li weesu laay wax li weesu weesu dafa am loo xam ne boo ci tegul sa gët mënoo cee wax boo ci waxee rek maanaam yow sa bopp fen nga woow nga woo fen fen woo xamante ne bii mënoo ko xamoon nu mu toll man li ma teg sama bët laa xam te fii laa seetaanee dialogue bi dama wax ma ne la bu fekkee ne da nekk ci dëkk boo xamante ni bi dèjà dëkk bi maanaam metti na ci ñu jëm ci tabaski am loo xamante ni bi tey ji mi ngi ci taabalul juge maanaam dialogue ba man ci sama xel laay waxe man man pour man dialogue ba gën a yomb mu bañ a am benn tension ne jël dossier boobu tegee ne le dialogue bi doog am sens. ñaata dossier bi moom yoon a ko yoon. wa non non non gis nga yoon moom mooy moom mooy mooy nguur rek. dafa am loo xamante ni jotewuñ de non sëñ bi sëñ bi am na ñaari pouvoir lay bokk non non non man man ah fii de laa wax benn pouvoir laa fi gis parce que nag dinaa la yëgal ñaar faw ñu bàyyi xel bañ a xool du bañ a suñuy xel dama la wax ma ne la ki nga xamante ni bi citoyen sénégalais la boo xamante ni wax naa ko léegi duñ ci gënaat ma ne ñaata plainte la déposé ci table juge ba léegi amu ci benn benn avancement te moom heure bu ñu ko def 48 te ko dama wax ma ne la dialogue bi keroog ñag mag ña fa nekk taxaw di wax ku ci nekk di wax maanaam waxoo loo xam ne jëmmal na réew mi lan nga fa dégg mati gëmmal di dóor xoolal di dóor waaye anamu tey loolu nag bëri na lu ngeen lu ngeen ci non non non mais ki ko wax euh, xëy na euh, li li nga xam ne compréhension bi si ñu bëri am jubluwuñ ci woon loolu rectification bi mu ci def mooy nee na Euh, la mu jubloon ci wax jooju mooy euh, bépp décision lépp loo xam ne waxtaan ko ci dialogue bi euh, ba mu nekk décision bu ñu fa jël na ko président appliqué na gëm rek appliqué la nga xamante ni moom lañ décidé foofu si dialogue ba xëy na gëmante dóor ji loolu la ci jubloon contrairement ak. waaw xam nga gis-gis bu ñu ci bari am. xam nga gis-gis yàlla xel la jox doomu aadama muy xalaat ni ngay xalaatee mën naa ko xalaatee fàll mën na ko bañ a xalaatee noonu dafa am boo loo xam ne boo ci nekkee cim réew. nga yow nga am cër boo xamante ni bi jox nañ la ko ci réew nga nekk yow ci sa bopp guide religieuse boo xamante ni bi yow sa bopp ñépp xam nañ cër bi la yàlla jox cër boobu yow yaay fexe ba wax wax joo xamante ni bi dana tegu Cheikh Bamba Dièye waxam ni dañ koo ngañ ñi Cheikh ma Dièye waxam ji est-ce que am na wax na dëggam ya muy wax génn dem toog. waaye est-ce que la mu wax moo leen arrangé rek. non non non de xam nga déjà tam sénégalais moo neexut a waxee aussi parce que nee naa déjà gëmmal dóor xooleel di dóor waaye nag sénégalais yi fi mu nekk nii léegoo wax benn bët la ñuy xoolee di dóor. mais gëmmal dóor gëmmal dóor xëy na euh, ay dañ nangu lenn nag gëmmal dóor wax na ko comprendre. waaw yow ni mu génn leeral. Euh, est-ce que duñu ko nangul tamit. Euh, li waaw xam nga man dégg man dama koy nangul la mu wax xam nga dèjà dama la wax ba nee nga nee nga génnaat na waaye man génnaat bi mu génn dégguma ko waaye gis nga wax kilifa dafa am wax joo xam ne danga koo war a wax ji wax ji wax ju teggin go wax ju worma joo xamante ne bii da nga koy wax sa peuple pour ñu bala xel. suñu suñu kili suñu kilifa la du n'importe qui ci réew mi. waaye nag dafa am loo xam ne bu fekkee ne danga nekk kilifa nga nga war a defar mu leer na yow ci sa bopp heure boo waxee lii tey ji suñu borom nee naa am na ci président cër am na ci président cër de. ñuy wax ñëpp am nañ ci président cër waaye nag gëmbal dóor ci ne dialogue la ba pare aussi am wax joo xamante ni bi day dem ba mujj day mel ni yow sa bopp bi ngay biñ ngay fal da ngaa ña sénégalais da leen a ñaanoon ñu may la déedéet Babacar nañu bañ a naxante gis nga fii nguurul yàlla rek a dul jeex waaye boo demee ba toog yow mu leen yow sa bopp yaay président de la République ak cër bi la yàlla jox nga taxaw naan ne lii nga xamante ne bii moom la ñu jëm troisième mandat da ngeen koy waxtaane da ngeen ma koy ñaan xam nga aussi dafa am yoo xam ne xel a koy nangu. si sénégalais su fekkente ne moom jàpp na ni yoon may na ko mu présenté wu. suñu bëggee mu bañ a wu xëy na dañu waxtaan ak moom non non non. parce que biñ ko jox waxtaanuñu woon waxtaanuñu woon ak moom de. mais moom dafa ñëwoon waxtaan diggante bërki démb ak démb ak tey dara fàtte xaju fi diggante 2011 bi muy dagaan baatu askan wi maanaam ak 2023 bi 2023 bi ñu nekk dara dara dara fàtte wuñ ko ci. nee naa la Sénégal lii problème bi mooy ki nga xam ne daa nekk ci kaw te du du bëgg kenn yëg ak ki nga xam ne moo nekk ci suuf bëgg a yëg ñu ne ko doo yëg ñaar yooyu rek fu nekk beneen bi ci des nag mun naa mën a ko ñoom 2011 bi koy nit ñi di jàppale muy génn askan wi ci place de la Lobisque ak palais de la justice mi ngi mel ni bëccëg ci ñun dara fàttewuñ ko ci comme nag bu ñëwee ba benn benn bis boo xamante ni bi mu ne day toog dialogue daal na ñun kat lii nga xamante ni da ngeen maa war a ñaan ñu waxtaane ko. pour lan ñaan gi mooy ban ci ban côté wala dafa takk dafa bëgg a takk baat buum ci suñu baat ñun du ñu noot ci côté bu nekk. d'accord dafa am loo xam ne tey bi tamit aussi ni ñuy déglu wala ñu ñuy seetaan nañu xam ne tey lépp luñ fi wax loo xamante ni bii tegu rek buñ génnee amaana dana feeñ parce que nag fii lu fi nekk rek dinaa la dinaa la ko wax gis nga dëgg rek kay mujj. te dama laa wax rek ma ne jamono ji ñu Sénégal fii. fen moo fi mën dëgg. d'accord alors yow lan nga gis euh, comme buntu boo xamante ni euh, mën nañu ko ubbi jaaree fa waxtaanee Sénégal ba génn ci situation yi nga xam ne yëpp euh, nekk na des situations incertitude nga xam ne Sénégal dina ci génn te dootul dund. li mu jot li mu jot a dund ci ginnaaw. ñu génn ci situation bu baax a baax lan nga gis comme buntu pour comme sortie de crise. waaw sortie de crise bi dama koy wax rek xam nga. ak lu ñu mën a wax suñu xam-xam la wax suñu gëm-gëm wax rek déjà sax laay mën a wax waaye président moo jiite sénégalais yëpp pour dire vrai moom ci boppam moom moo war a wane folie de grandeur comme wax na ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ba pare na génn wax ak askan wi ci lu tempériser réew mi bàyyi ku bëgg a dem élection dem lii mooy jàmmi réew mi waaye leneen luñ fi mën a def lu dul loolu bëgguñ ko de waaye fi mu nekk nii xale yi dañoo déterminé lu leer laa lay wax te ñaari li leen gën a déterminé mooy nervi yi nga xam ne. lii moo duut bunt buy génnee Sénégal. non non non ay xale yi xam nga waxuma ci détermination xale yi. parce que jàpp naa loolu nekk fii daan xale yi dañoo déterminé di leen gën a pousse. non non euh, pousse nekkul luy génnee Sénégal ci crise wallaahi maanaam euh, yow yaa jàppale pousse la ban gis-gis nga am. gis-gis bi ma la wax moom moo ci ne ne bunt la boo xam ne Euh, pour génne Sénégal ci crise bi. gis nga buntu bi ma la buntu buntu bi ma la wax. moo nekk nii moom daa bëgg jàmm ba dem ci Sëriñ Muntaxa dama la koo wax léegi nee naa lañ fa wax ñoom ñaar kenn mënu laa wax ne la lii la moom bi bi mu ñëwee ba toog mooy président de tous les sénégalais moom mooy génn ne ah dialogue kat laa bëgg ci entre man ak Ousmane Sonko wala 2024 bi fi mu nekk mu ngi ñëw bàyyi naa ñi nga xam ne ñoo war a voté yëpp ñoo war a dem présidentiel yëpp ñu dem. président teewul kenn bay bàyyi kenn. non non non xam nga tamit dèjà am na loo. xamante ne seen problème la. billaahi moo yor xalimaam di ñaas. moo yor xalimaam di ñaas am na loo xamante ni bi tey tey loo fi nekk rek waaye xam nañ ni réew mi doxee. d' accord ñu ñu bàyyi la nga nga tàggatoo rek ñu yëkkati jotaay bi ndax waxtu bi moo ñu moo ñu tënk. waaw waxtu bi day tënk nañu waaye waxtaan wi moom wax dëgg yàlla xawoon na xaw a doy waar nag waaye di jéggalu ñi nga xam ne ñoo ñu topp ci parce que comme émission la boo xamante ne bi moom déjà sujet boo mu amul tabu moom. Mhm. déjà du lenn ñu programme dañuy ñëw dugg ci kii bi. di wax mhm. ne lépp luñ fi wax bu fekkee ne dafa wàcc yoon ñuy jégalu sénégalais yi. nga xamante ne bii nag tegu na ci yoon ñi nga xamante ne bii lépp lu ñu wax bu tegoo ci yoon yoo xam ne ndimbalal suñu boroom la di wax ni mbokk yi dañ leen di déq di daje ci beneen numéro incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu nga ko jërëjëf euh, ñu amoon mbégte Cheikh ak moom waxtaan bi euh, Serigne Khafor la donc di leen sant di leen gërëm yéen euh, mbokk internet yu DK 221 ñu doon topp ci waxtaan bi di leen jox dig daje beneen ak yoon bi ci àllande jërë ngeen jëf.